waaw mën naa la ko expliquer ba mu leer na ñoom maa fekk lépp affaire bi ay vers euh, cinq heures ay booy ñoo fi jaar def poul booy dëkkuñu fii fi marin la quoi route de marin la booy dëkkuñu fi booy kenn xamul fu ñu dëkk booy ñoo fi jaar jugee côté essence ba di ñëw bon bi ñuy ñëw ñu ngi tasaare ay mbalit ay siyo mbalit lu ñu romb dañ koy sànni ci kaw tali ah bi ñu ñëwee ba jàll ñu dem ba fële euh, ci côté kër sër bi ñu fekk fa benn orange money benn caisse orange money bu taxaw foofu ci lañ ko yëkkatee taxaw bare ko ci kaw maanaam baare ko ci kaw tali bi bon bi ñu ko baaree ci kaw tali bi policiers yi di ñëw bi policiers yi di ñëw ñun ñëpp dañoo taxaw fii di seetaan fii fii fii booy ñun foofu lañ taxaw ñun ñëpp di seetaan bi ñu ñëwee sax ñoom bi ñuy ñëw ñun dañu daw quoi après bi ñu ñëwee ñu jàll a xel bi ñu ñëwee ñu attaqué booy yi booy daw léegi ñuy xeex booy foofu noonu quatre policiers la ñoom ñoo wàcc kii dawal gisuma ko mais quatre quatre ñoo wàcc kenn ki dafa xees kenn ki dafa njool am na base dafa ñuul. non kenn ki dafa gàtt ngi ñëw maa ngi maa ngi ñëw yaa ma dégg dégg nga léegi bi ñu ñëwee ñu taxaw fee bi ñu taxaw fee bi ñu taxawee fee ñun ñëpp ñu taxaw fii dégg nga ñu jékki-jékki duggaat seen oto. bi ñu dugaasee bi ñu dugaatee si oto bi ñoom dañu daw si ak xel di ñëw bi ñu daw si ak xel di ñëw booy di daw bi booy di daw ñu egg si ba fii booy bi mu ngi taxawee nii beneen gaan bi mu ngi taxaw beneen gaan mu ngi taxaw nii dafa xees gaan bu xees bi moom mu ngi taxaw nii kooku kooku patron la. non non policier bi ci oto bi lañ nekk. policier bi ci oto bi lañ nekk ku xees ki mu ngi taxaw mag ji mag ji si boppam moom mu ngi taxaw nii man maa taxaw nii ok benn waay na ma. arrêté lii arrêtel nii ah voilà xam naa li ma la wax arrêtel nii ak fu ma dem arrêtel nii ah

garage lañ nekk soo ba léegi ñoo ngi xëy fii garage génn ñoom ñoo ko ba mu nekkee xale bu ndaw laa ko yore ba tey fii laa tëdd sàng laa yeew ay six laa yeew dem fii sama benn dëkkandoo fii léegi ci laa jógee taxaw ci mbedd mi benn xale bu góor fekk ma fi ne ma tànta xanaa yëgoo xew ma ne ko man de li xew yëguma ko mu ne ma nee nañ seex lañ dóor bal ci bi ma ne rek léegi ci dugg si biir kër gi taseg papa mu ne ma rey nañ sa doom ma ne kan mu ne ma bàyyi seex noonu la ko nee dem ci laa woo magam ju góor ji ko yor su mécanicien bi di ko woo nag gaañu wala gaañu mu ne ma bàyyi seex noppalu na am lu ma naqari am lu ma métti lool bàyyi seex Jóob yàlla na ko fay ja ah nee nañ daal ban lañ ko. dóor ndax man fekke wu ma ko maa ngi toog fii sama kër loolu rek laa dégg ñun papa moom nee na maa ngi papaam téléphone waaye mënu koo jot te dégg naa tamit yóbbooguñ ko ba tey mu ngi tëdd. ay 17 ans rek la am. kon gis ngeen kii mooy tantay Baye Cheikh Diop bi nga xamanteni ni mom lañ door bal fele ci teli marin bi mom moko yar ñew lañ fi seen kër euh, doo dem ci terrain bi euh, doyul ak lu ñëw seen kër fi ba legi koor bi mi ngi fofu kon loolu moo nekkoon bir mi yëmbal fii ci tëli asagna bi yëmbal noor teli marin jere ngeen jëf